وين ولا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كثرة الهجر وقرى يا باب الغيظ يا رب لم يفد لذاك صرفنا نا وبابك وجتي فأنت كريم فالكريم من التجا إلى بابه يا من على كل نقمة سن وخل سبع وخل سن بمن سبع وخل فريكو آه. فتبارك الله كن ري أملا وصص لما xam توصل tawasul حاج مالك دفن def ko ci yàlla lu déglu ngay alaaji Malick di léppam di lépp ñépp di ma fiirloo bayitu alxaaji Malick bu mu def ci yàlla maa ngi ci mu jëmb nag asalaamu aleykum gannaaw bu ñu nuyoo wajur wu tedd wii di ko ñaane yàlla gudd fa nag wér a yàgg fi li ci waroon teg sama secrétaire di porte-parole bi tegal na ma ko ci fa tabaarakallaa borom yëf yi di lépp muy sunu wajuru tedd yi wax na ko léegi nag ndigal ak ndigaale ak ndugal ñett yee fi nekk ndigal ndigaale ndugal ndigal soo mënee defal soo mënul defal ndigaale soo mënee defal soo mënul bul def ndugal soo mënee bul def soo mënee bul def ndigal ka la koy digal moomu ca dara yaa moom lépp jullil wooral ajal defal lu baax kooku ka ko wax moomu ko yow yaa ko moom soo mënee defal soo mënul defal ndigaale da ngeen di bokk njariñ li soo mënee defal boo mënul bul def ndugal ki la koy wax moom moom lépp yow moomoo ca dara boo ma nee bul def boo ma lu bul def alquran indi na ko tasulu maa lam yaxsun tamaadi maa xasala ak ziyaada tasulu maa lam yaxsun tamaadi maa xasala ak ziyaada fekk lu amul nga bëgg mu am ak fekk lu am nga bëgg mu yokk ak fekk lu am nga bëgg mu sax yàlla nee na yaa ayuha nabi اتق الله يونت يالا بي رغالال يالا بو نه خامل محمد رغال يالا دي رغال صح يا ايو الناس اتقوا ربكم يين نين ني رغال لين يالا ين ديكو رغال لغول رغال لين كو كيكو رغال باغال بغ مو صح نيتنا دي ما حصل دي محمد يا ايو النبي اتق الله ولا بوك زياده غاي لك نيت نكو سان واي لكال داغا بغ مو غنا لك واي ما غاي لك كون ديغلا تخ ماي واخ فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي خير الله جابرك وخرع باب الخير يا ربي لم يفد إذا كصرفنا نحو بابك وجتي فأنت كريم فالكريم ينتجع آه إلى بابه يا من على كل نعمتي مدام فأنت حليب يا صبر لمن جفا فإني عبد faha ana ana abdun jiitu baadiya zillati déggal bu poñe doon am poñe ba ñu si xaaji Malick foofu bu yàlla doon nit ci maanaa da ko poñe fala budda min shakwa fala budda min shakwa coppan jeet jaas deel coppal deel jaas shakwa ci tawat kurbati sama njàqare ilallah maay wax sama yàlla il ma wax yàlla sama njàqare ak li ma tiit par force ma def wala min shakwa xam min bi moo doon dëkk fi indi waay dëkku fi mu dara da ko bëgg rek wayu rek min shakwa rek fala budde rek shakwa kurbati ilallahi rek fala budda shakwa kurbati ila allah par force sama njàqare ma tawal ko yàlla way wee tax mu ni min shakwa rek waaw min nazidin aanun li maa yurid ak ay maa yurid laam nga ma ngo min shakwa fa maaliya xayrullahi jaabiru kasarti nag fa maaliya dee di ñeel mën a laaj maali jaabiru kasarti samay damm-damm ku ko mën a jàng xayrullah rek samay yàlla rek samay dama damm ak samay bëgg-bëgg ak la ma ca namm yàlla rek moo ko mën a jag amul keneen moo tax par force ma tawar yàlla li ma bëgg waaw ah, mu ne waxaar aya sama fëgg man man Abaaji Malik baabal xayri buntub keneen lam yu fi du jëriñ dara ku mu fëgg buntum te du yow yàlla du jëriñ li zaaka saraf naa naxwa baabika di ci li nga xam ne mënu maa fëgg benn bunt ba mu jariñ ku dul yow yàlla di daaka ci loolu le nag saraf naa lanu soppee naxwa baabika sa wàllu bunt wi jëti sama një ak sama jëmuwaay ak sama jubluwaay jubluwuma ko ci kenn ku yow yàlla ndax yaa ko mën a faj karimun fal karimu man iltaja anta karimun fal karimu man iltaja ila baabihi yaman ala kulli niqmati fa anta karimun yow yaa aji tedd ndax ku tedd yaa ko teral ci sa tedd nga fa anta karimun fal karimu man taja ila baabi yaa man ku tedd baax am lépp te du ko aaye boo wéeru ci buntam ni ko laa rabbi laa may ma mu may la ci yaa man ala kulli niamat kon nag fa yaa xayu de doxal góor gi fa yaa xayu yaa qayuumu ya allahu rabbana ilayka tawassalnaa بخير البرية صلى الله عليه وسلم ويا حيو يلا دفات مك دفات مك تكو فات مولا فات فيا حي يو أجي دندج تدو في جنگ مك تكو في جنگ ياكو في جلي يا قيوم يومي دقر يومي وعدة يومي وعدة يا قيوم سكراو كدنگو كنا مولا جبل فيا حيو يا قيوم يا الله ربنا دق الموضوع بن بو نمو تخيكو باكو يالا بير بير مي فيا حي يوم يدند يا قيوم يوم يدغر يا الله يا يالا يا ربنا يا سن برام اه توصلنا جوكورن اليك تي ياو نك بي خير البريتي كوم نك ما اسر الرحمن ان يرسلوا في رحمة تصعد أو تنزل في ملكوة الله أو ملكه في كل ما يتص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مصار مصر واسطة ترجعه فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورهبة وشفعه دجل شفعه وتبني فينا رمونا نكو جمي وكو تي بوب فينا تي الدعاء اذا امنتها واذا قصرتها نيان بوكو دغلي يالا ييكتي بوكو ماتل مو نانغو سامباني وشفعه ني فينا دباتا رمونو نيب يري فينا واي وقل فيا وقل فيه وقل فيكما وقل فيكم وقل في وقل فيه وقل فيها فينا وشفعوا فينا في اللقاء دي لا اله الا الله كوكو دوغو جيو دوغالي جيب جيو الحاج مالك دوغو نك جيو دوغالي جيب جيو موتر ليب جيب نيب كو بوك موتر با خيل نيب ري جيب ناخ بامي واخ نيب لا واخالين وشفعوا فينا في اللقاء اها وكلنا كيب كيب تي نون سوى الحب كل صبابه moo suufun ku ñu meral la bi roobin wër hëbati ku dul yow du sa soppe ba kiit nga jaaxle nga wante nag sa biir soppe boobu ak sa barke yow yàlla jaaxle nga yépp na nga ko dindi kon yàlla ci dëgg ci loolu ak ñaanal aji maali googu lépp sama baay wax fii ñaan ko fi yàlla ko yàlla na amin sëñ Mansour sëñ bi ne jërëjëf jërëjëfati boog jëf sa jëf jee jara jëf ku way ki way way wi si ku way way mu di ko firi jaam juddu bi ci kër gi jaam juddu bi ci kër Seydil Haaji Malick mooy Abdoul Aziz mooy Alhaaji ak i doomam ak i soppeem ak i soppeem ak i dëkkaaleem ak i dëkkaaleem yàlla yaa ngoog ñoo ko yàlla yaa ngoog kon